الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbale ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi réere wuñu mbir ne ñoo ngi ci weeru gàmmu weer wi bu jotee lu bari ci ñun danañu feeñal ne dañoo bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaral ñu ay voyage jaral ñu génne alal ñu bari ci ñun sax di sonn boo leen laajee coono yi lu ko waral ñu ne la ñun de dañoo bëgg yonent bi ndax weer wi walla bés bi ku ci def nangam di nga am nangamu tiyaaba fekk mbokk jullit yi li ci ëpp ci ay coono yu ñuy dépassé ndeke du farata du sunna ndeke bëgg yonent bi jarul voyage jarul ngay déplacé gox ak gox li ñu santaane ci diine ci yonent bi mooy roy ko mooy jéem a mel ni moom jéem a mel jëf ay jëfam la mu doon santaane nga taxaw ci moo tax laaj bi mooy kayfa naqtadi bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka la ñuy def ba roy yonent bi loolu mooy wax ji ñopp ci ñun ci ñoo xam ne ay jullit lañ ci weer wi di ci manifesté wu ñu ëpp ci ñun laa wax boo nattee seen melokaan ak jëfu yonent bi da ngay fekk ñoo yonent bi dañoo sorante ndeke kon jarul tukki jarul ay nag jarul yàpp jarul cere jarul dara yow fexeel nga roy yonent bi ci ñii lii ñu la wax wallahi boo tëddee sa néeg ñi dépassé ay place dox yow laa leen yow yaa leen gën a jege yonent bi kon roy yonent bi lañ wax kayfa naqtadi bi rasulillah loolu lañ koy màggalee loolu lañ koy bëggee loolu lañ koy soppee moom sallallahu alayhi wa sallam bi ci njëkk mooy bi taqwa qaala taala إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولكن أيها الأحباب كيف نكون من المتقين واتباع سنة رسول الله وإقامة فرائد الله والواجبات الدينية المطلوبة liñ la njëkk a sant yow mi bëgg a roy yonent bi ragalal yàlla soo ragalul yàlla nga nekk fii di génn ay millions di jëndi nag di luwe ay baas di takki rajo di yuuxu ba bër set c'est zéro wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansour yàlla nee na ñooñu doon def yooyu ëllëg yowmal qiyaam déplacé wu nañ jëm ci seeni jëf ñu fekk mu nekk pënd ak poussière parce que dëppoowul ak yàlla li mu bëgg fexeel yow mii woote ne da nga bëgg yonent ragalal yàlla borom bi nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla waaye mbokk yi naka la ñuy def ba ragal yàlla nakunu min al muttaqin biltizaami bilhaq ni ñuy def ba bokk ci ñi ragal yàlla mooy ñu jàpp ci dëgg jullit dafa war a gëstu dëgg ba mu xam ne lii mooy dëgg mu jàpp ci dëgg waaye li ëpp ci jullit tey dëgg dafa romb ba pare ñu jàpp ci takkandeer bi dafa ne mu ngi foofu fekk dëgg dem na yoonam ñuy rey seen bopp ci takkandeer bu doon jaan la juróom bu dem watat wi yeewu suba nga jël yat doo topp ci watat bi di dóor est-ce que di nga rey jaan tontu bi mooy déedéet jullit na fexe mu dëggu jullit na fexe mu jàpp ci dëgg waaye wattibaayi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam te xeel nga topp sunna yonent bi sunu mbooleem duggub sunuy génn sunu mbooleem jëf yi sunna mu ngi sunu wet sunna yonent mooy li yonent bi daan def yàlla bi mu jàngalee diina ji ne lii la yonent bi ñëw ne moo ko leeral ne lii la loolu mooy sunna buñ la tegalee junni mbir ne la lii dañ cee war a def benn laajal lan moo ci sunna misaal boo amoon ngénte ñu ne da ngaa war a tudd jigéen ñi taxaw mbokk yi taxaw ku nekk ne lii nga war a def yow sa laaj mooy lan say mbokk ak say soxna sa soxna ak ñeneen ak ñeneen ñu taxaw ne la ku nekk ne la lii ngay def sa laaj mooy lan ñooñu waaw yéen ñii lii ngeen ma wax lan moo ciy sunna lu yonent bi doon def ñu ne la lii la nga bàyyi ñépp lu mu doon def daal di def sunna loolu mooy da ngaa bëgg yonent waaye tey xam ngeen ne da ngay xewle say mbokk taxaw ñëpp taxaw sunna taxaw ñu ne la ah dëgg la de yonent bi de lii la doon def waaye nag waaye nag mbokk gi lii lañ bëgg nga ni waaw kon naa ko def balaa mbokk gi tas dëgg la de am ngay mbokk waaye ñàkk nga yonent bi moom boo amee say mbokk ñàkk yonent bi loolu ban njëriñ la am yowmal qiyaam nga ni tëll yonent bi ne tëll nga bëgg a ñëw mu ne la déet keroog ba gaa yi taxawee ñu ne man lii laa wax say mbokk ne lii nga wax foo demoon koo jëloon nga perte moo tax yonent alayhi salaatu salaam yowmal qiyaam day taxaw ci teysaan teenum kawsara seen dex gi ko yàlla may dex gi nga xam ne boo ci naanee dootoo mar am ñoo xam ne dañoo ran yonent bi tànk ay kaas di leen jox ñuy naan am ñu bëgg a ñëw yonent bi ne déedéet fa boo daan nañ ma sori ñee bokkuñ ci de fa boo daan ñu ne ko lu tax yonent bi ne zaadu wa baddalu dañoo yokk wàññi ñii nañ ma sori dañ ragal yàlla mbokk yi bëgg yonent bi du ay wax du takk ay rajo du yuux du organiser ay tur ñi ñooy ahibaayi nabi ñi ñooy ahibaayi rasul ñi ñooy bokk bëgg yonent bi ay jëf la du ay wax koy jëf soo ko jëfee ñu xam ne yow da ngaa bëgg yonent sallallahu alayhi wa sallam ku la gis di la mere na la mere ci li nga def yonent bi moo ko doon def ku la bañ na la bañ ci lii ngay wax yonent bee ko doon wax waaye tey ñun ñëpp danoo nangu am ay mbokk am ay nit am ay àndandoo pour lan pour dëdd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu indi woon bi tibaayi sunnati rasulillah wa iqamati alfaraid bëgg yonent bi mooy nga taxawal farata yi ndax yonent mus na faat benn waxtu ndax yonent mës na jullee ci biir néegam ndax mës na jullee ci biir këram ndax dina bàyyi ba ajjuma ba ajjuma muy doog a dem jàkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mës na bañ a julli ji farata suba tisbaar takkusaan timis gee bëgg yonent bi mooy ngay joxe farata yi farata yi yàlla gàll saloos wal waajibaat ad diiniya al matluba nga joxe farata diina yi ñu sàkku sa kaw loolu mooy bëgg yonent man damay gis Sénégal ku dul julli fajar ñu ne bismillah gàmm gi jot na mu luye oto foo ñëw damay gàmmu ji daal dem dee dund dee te mu du julli fajar day nelaw day biddanti lu mu yiti lu mu yiti gàmmu kurul kurul kurul dem fajar jàkk kuy biddanti waxuma sax kuy biddanti waaye kuy julli midi suba midi tëdd di nelaw ba midi ah ñoo ngi jógee démb ci le premier janvier 31 xoolal gars yi 31 yëpp dëkk bi kenn déggul tar pétard suba ñu gàddu ay kaar ne dañuy gàmmu ji bu njëm luñ fa wuti munoo weex ñuul munoo nekk julit nekk yéefér munoo màggal guddi isa ca catholique ya màggal guddi yonent bi munul nekk soo waxee ñu ne non Isa jullit la waaw d'accord naa de yonent la jullit la waaye fan la yàlla wax nañ màggal guddi Isa fan loolu mooy wax bi ndeke diine du ñun suñu xel lu mu rafetlu mais ay texte la yonent alayhi salaatu salaam dafa gis Omar di lire Bible yonent kanam gi soppeeku changé mu mel ñu ñëw taxaw ci minbar bi yonent bi ne Omar maa ngi lay giñal ci yàlla ne Isa bu dekki woon ci kaw suuf adduna bi du yaatu ci kawam lu dul mu nekk sama ginnaaw sama sama sahaaba lay nekk voilà kon ñun lan la ñu uti bëgg a màggal 24 màggal 31 lu jot ñu yëngu ñun fan lañ bokk ñun ñun ñooy ñan lu jot rek jullitu Sénégal bokk nañu loolu du diine diine yoon la wu yàlla rëdd keroog bi ko yàlla rëddee dane wa anna haza siraati mustaqiman fattabi'uhu lii mooy sama yoon wu jubbi topp leen ko la yàlla wax baat boobu lañ ci teg fattabi'uhu ba aaya bi di jeex mu ne wala tattabi'u subula bu leen topp ñall yi ñall yi mooy ñun liñ bëgg a def ñaareel ci bëgg yonent ci naka lañ koy ree mooy bi zuhd mooy du mooy ay caaxaan mooy dëddu àdduna قيل يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على حصير قد أسر في جنبه لو اتخذ فراسا yonent alayhi salaatu wasalaam Omar daf ko fekk mu tëdd ci benn basang basang baa ngi wow koŋ bi Omar ñëwee ne yonent bi jàpp loxo yonent bi di ko jox loxo Omar seen faari yonent bi mi ngi deretal ndax basang bu wow sallallahu alayhi wa sallam Omar ne ko yonent law ittaxasa firasan doo bàyyi ñu utal la benn lal bu nooy ay mat la doo bàyyi ñu tegal la sunu mbàjju yi ñun ñu dem sunu kër ku nekk ñuqi sa mbàjju ñu tegal la ko mu nooy yow yonent nga tëdd ci ndeysaan yor yonent bi daal di xool Omar daan ne Omar maali wali dunya maali wali dunya ma ana illa ka rakibin istazalla tahta sajara summa qaama fa tarakaha Omar dama mel na yow li nga may proposé tey li nga may wax ni mbiru àdduna la xanaa xamoo man àdduna ni ma ci mel man yonent bi damaa mel ne ku doxoon ba sonn seen garab gu féex mu toog noppalu su toogee ba coonam dem moom waajoo ji doon noppalu lu muy def day buddi garab gi muy dem tontu bi mooy déedéet day dagg kër gi yóbbaale tontu bi mooy déedéet day jóg bàyyi garab gi bàyyi kër gi dem yoonam yonent nee na man noonu laa mel ci àdduna soo bëggee yonent kon noonu ngay mel doo jàpp ci àdduna langaamu ci àdduna mel ne doo dee comme tey ñun sénégalais yi ni ñu langaamoo ci àdduna suñu dund yëpp àdduna la même suñu voyage yu métti yi ñu dem di sóobu ci géej gi àdduna kese la bëgg a ñëwaat jor ay 4x4 takk ay chaîne yenn saa yi nga gis ci kenn koo xam ne dafa ñëwaat sa yaram day daw takk góorum lëmm takk ngandum lamu xaalis takk chaîne boo xam ne daanaka ko ko takkal xaj dix ans foofu lay dee loolu ab jullit du ko def yonent saa salaam daf ko tere bëgg àdduna goo xam ne ci sunu lépp bëgg àdduna yonent saa salaam noonu la meloo loolu la waxoon kon ku bëgg roy yonent bi noonu ngay mel ixwaan yi ñetteelu tomb soo bëggee roy yonent sallallahu alayhi wa sallam bi tawaadu yonent bi dafa suufe woon pourtant dem na ba kaw asamaan dem na bañ ne gis na yàlla ñenn ñi ñenn ñi ne gis ko de waaye moom dem na ca pays ya dégg na yàlla di wax ak moom dégg na xalima yi di bind ñenn ñi ne déedéet gis na ko waaw kon kay kooku xoolal mu dem ba foofu waaye mu ñëwaat ndeysaan di tëdd ci basang ba yaramam di tara di di di di tërgal allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ndax suufe suufelu di lekkandoog miskin yi di yeewandoog ñoom di nuyonteeg ñoom di lekk tàndarma di lekk seel yàpp bu wow di naan ndox mu ñuul mii sallallahu alayhi wa sallam yaru ay bagage dem marché di ndugal boppam xëy suba di fóot ay dàllam di raxas boppam di raxas sangukaayam sallallahu alayhi wa sallam jël ay bale di bale biir këram te pourtant dem na ba kaw asamaan dem ba egg fu kenn yeggul ah donte ne sénégalais yi ñoom gëmuñu loolu ndax yenn saa nga gis ku yeewu ne siège bi yonent bi toog toogoon naa ci wax nañ ko ci réew mi. waaw dégg ngeen ci réew mi ku nekk 16 man rañaan naa 16 bi yonent bi toog toogoon naa ci Sénégal moom yonent bi seen seen doomu ndey la quoi dañ koy dañ koy diir mbagg yonent bi raw na leen raw na leen wallahi te dootuñu ko daf parce que yàlla moo ko yëkkati alam nashrah laka sadrak fa wada'na anka wizrak alladi anqada zahrak wa rafa'na laka zikraka partout dans le monde tey heure bii heure bu jot tisbaar takusaan suba timis su ilimaan su noddukat bi ne ashhadu an laa ilaha illa allah tur muhammad lañ ciy teg tur boobu moo ëpp lu ñuy répété par jour ci àdduna bi muhammad li ñuy tudd tur muhammad ci àdduna kenn du ko tudd tur nit sallallahu alayhi wa sallam kon nañu xam mooy kan parce que yàlla moo ko yëkkati foofu yàlla ne ko yàlla moo ko ne maa la yëkkati keroog bi ko yàlla waxee ba léegi lu nekk a ngi xew lu nekk ñu ngi ko ciy wax tubaab yaa ngi def tout am ñu réer ñi di ko wutal concurrence yi ngeen di gis fi sax ci réew mi ñu koy wax yonent bi bal ca tubaab yooyu la juddoo waaye dara benn yoo dafa tag ci kaw guy cëppeelu ci guy gi muy waaja naawaat di dem ne guy gi tëyal sa reen yi jàppandul maa ngi naaw balaa ngay daanu guy gën a ko bi ngay tag da yëguma ko woon kookoy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yonente alayhi salaatu wasalaam dafa wàccoon dafa suufe woon yuusi xayran bi absati nnaas ma isa wa aqallahum yonente bi moo gënoon dund ci doomu aadama yëpp dund gu suufe dund gu yem dund gu yemamaay daan tëdd ci suuf ndeysaan ci ay basan daan njaganaayoo ay dàllam daan ko fóotal boppam ñun ana kilifa buy def loolu tey bal yonent bi wal leen na dafa suufe da doon war mbaam tey boo gàddoon benn mbaam yóbbu ko ba ci kër ci kilifa gën a màgg ne ko may naa la mbaam ñu ne la ca xaj yaa ngi moom kii du war mbaam yonent moom da doon war mbaam pour wan nit ñi ne da ngeen a war a wàcc su ñuy wax ne dañoo bëgg yonent est ce que wàcc nañ ñun est ce que suufe nañ est ce que wàcce nañ suñu bopp yonent da doon war mbaam yemul ci war mbaam waaye mu jël nit togg ko ci mbaam mi waaw ñaari nit muy dox gis kenn mu ne ko kaay yéeg ci ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam mu ngoog te bu ko neexoon du war mbaam de bu ko neexoon gëléem kese la yéeg parce que loolu amoon wala ay fas bu ko neexoon mu ne xoolal leen ma gëléem bi gën a rafet ci gëléem bi te bu ko waxoon wallahi gaa yi mu nekk loon indi ko parce que ñooñu pare woon nañ loolu keroog bi mu génnee àdduna ñu sang ko denc ko ba pare doomam bu jigéen Fatima daal di jooy jooy yu métti Bilal ne ko Fatima lan la mu ne ko naka ngeen mën a jële suuf si xar ko di ci dugal Muhammad naka ngeen mën a suulee yonent bi ci suuf yéen yéen yéen seen seen yaram du daw Bilal ne ko naam ya Fatima innahu amrun min awamirillah law amara abuka an naj'alahu ala firash bayna as-samai wal ardi lakunna bihi lakin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra sa baay yow Fatima sa baay bi muy sukuraat bu dénkaane woon ne bu ma deewee teg leen ma ci piliyaanu or ngeen yéegal ma ci kaw asmaan wallahi ñun da lañ ko def xam nga ñu ñun moom rek lañ bëgg waaye nag lii nga gis ñu def ko mooy xar suuf si dugal ko ci yàllaa ko santaane yàlla moom lu mu wax rek dañ koy def yàlla nee na ci suuf laa tibb bind leen su ngeen deewee ma dugal leen ci suuf buñ leen di génne ma génne leen tibb suuf kon mbokk yi mbir yaa ngi noonu nañu suufee ñeenteel bi saxaa nañ tabe jullitu nay albaxilu laa yadxulu aljanna qaala sallallahu alayhi wa sallam maa jabala allahu waliyuhu illa ala shaqa jullit bu ne damaa bëgg yonent tabeel yonent dafa tabe woon ba dee ngeen weeru koor moom moo gën a tabe ngelaw li naka ngay woote woo ne yow dangaa bëgg yonent fekk doo dimbali sa benn mbokku jullit fekk doo jàpp ci sa loxo benn mbokku jullit doo tibb ab dank sax ba bokkoog jullit doo jënd benn kilo mburu sax ba dagg ko bokkoog jullit yow rek sa bopp sa kaas bi ngay naanee sa kuddu gi ngay lekkee sa palaat bi ngay lekkee sa côté bi ngay lekkee sa ruq rek ba pare nga ni yow yaag yonent bi yéen a yem yonent bi moom musul lekk moom kenn musul naan moom kenn musul suur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musul suur musul suur bëccëg musul suur lekk ba biiru fees mu naan ndox ne gërr yonent bi mus ko def sallallahu alayhi wa sallam kon soo naan da ngaa bëgg yonent damay màggal yonent damay gàmmul yonent te yow joroo jikko yi yonent bi yor da ngay nax sa bopp aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafur rahim alhamdulillahi wahdahu ولا نعبد غيره muxlisina lahu diin
walaw kariha alkafirun ixwaani fillah juróomeel bu fekkee da ngaa bëgg yonent bu fekkee da ngaa bëgg a roy yonent fexeel bil afwi war rahma fexeel ngay jëllale fexeel nga am yirmande kayfa yastaidu lmujtama wa yataqaddam wa yazdah wa yurabit wa ma hiya illa asbabu lquwati lmujtama mbokk yi naka la ab xeet ab société di texee naka la ab société di demee ci kanam fekk société boobu du ñu dimbalante du ñu jàppalante du ñu jéggalante du ñu yërëmante te xam ngeen ne yi mooy asbaabu quwatil mujtama mooy sabab yi tax ab société di texee mbokk yi société boo xam ne laa yataraabu du du ñu tëyante du ñu jàppalante du ñu dimbalante société boobu du dem yonente alayhi salaatu wasalaam dafa yeewoon jullit yi ne leen al muslim axul muslim jullit jullitay mbokkam yonente bi dafa yeewoon jullit yi ne leen masalul muminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masalil jasadi lwahid ida staka minhu udu tadaa lahu sairul jism bi sihri walxuma yonente dafa yeewoon jullit ne jullit ni mu war a mel mooy dañoo war a mel ne yaram suudew comme cër yi ni ñu suudante su bopp méttee yaram bi yëpp yëg ko su tànk méttee yëpp yëg su bëñ méttee lépp yëg yonent bi nee na jullit yi noonu lañ war a mel arrahimuna yarhamuhum rahman ñii yërëmaate yàlla moo leen di yërëm irhamu man fi l ard yarhamukum man fi sama su ngeen bëggee yërmande waa kasa kaw asamaan yërëm leen waa suuf yàlla yërëm leen yërmande googu tey anamu ana Sénégal yërmande tey anamu anamu ana jàppalante ana dimbalante gi ñuy wax bëgg yonent bi gi ñuy woote xam ngeen fu mu yem ci lekk cere lekk yàpp yuuxu ba fajar jot dem ñëwaat tëdd nelaw foo demoon dama ziyaare ji woon yonent bi jeex na amma jikko yonent bi melokaanam jëfam yi mu doon def kenn ci ñun du ko def lu dul ku yàlla yërëm lu néew ci mbooloo mi ñoom ñoo naan man dama bëgg yonent li la gaa yi di laaj waaw guddi gi moom luñ ci war a def ci ay naafila yow doo julli fajar ngay nangay naafila looy dee naafila yow doo julli fajar doo yeewu doo dem jàkk nga naan guddi gi luñ ci naafila boo fanaanee naafila ba pare après buñ naa salaatu xayru ne nag nga tëdd sa kaw la loolu naafila bi lu mu la jëriñ laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ay mbokk yi nañ leen góorgóorlu suñu diine bu na aduna jay bu na aduna wor wallahi al azim sunu caaxaan yi ñuy def yëpp suñu bopp la ñuy nax yi ñuy def guddi yi ñuy tëgg nii di yuuxu takk ay rajo amul ci islam jànguñu fenn yàlla mu ne dee leen zikkar di yuuxu amul dañ leen boo nekkee jàkk ji sax di tudd yàlla ki nga dendal bu mu ko dégg loolu lañ la wax parce que baat bi ngay yëkkati sa baat di yuuxu yeneen bi nee na saxaaba yi woowu leen ku tëx yàlla tëxul ñu ko dégg moo tax booy ñaan soo ne ya allah ya allah ya allah ñetti yoon ñu ne la yàlla nu uyu ne yàlla ne la labbayka ya abdi léegi imaginer ngay ñaan benn waaye nga wax turam nga ni ko diw mu ne ah nga toog fa naan ko diw diw diw ku demoon ba pale monsieur le président mu ne wooy nga nekk fa naan monsieur le président monsieur le président monsieur le président ñu ne looy def ni nga ni junni yoon laa koy wax dañ naan kii génn leen ko dafa dof nooy ñaanee yàlla ya allah ya allah ñu ne la labbayka ya di nga toog fa naan ya allah ya allah ya allah moo tax parce que xel la ñuy demee du ñu demee suñu diine du ñu demee lu ñu yàlla wax du ñu demee li ñu yonent bi jàngal moo tax ay catastrophe rek la ñuy def ci diine ji yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahuma ya musabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an taruddana ala dinika maraddan jamila اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله yi nekk ci buntu jumaa yi ñu jot